Kaffrine du ñëw fii Dakar di fi loué apartement boo xamante nii suma ma su du ma mën te Kaffrine ma am fa kër goo xamante nii 1000 carré la kon donc du coup l'inégalité bi nga xamante ni dafa amoon moom lañ bëgg a réparer ak économie bi nga xamante ni c'était une économie exogène mooy économie boo xam ne c'est extraverti ay nit yu jógee Europe wala jógee Amérique wala jógee feneen ñoo ñëwoon porté ko au Sénégal loolu ne dañ koy dindi pour économie bi mu des ci Sénégal secteur privé Sénégal le Sénégal d'abord le Sénégalais d'abord ñun foofu lañ woo askan wi foofu lañ woo Sénégalais yi te foofu lañ jëm ak ñoom bu soobee yàlla. Mhm. tey jii pour vous dire euh, projet bi vision yi. Mhm. agglomération actuellement nii trois moo ci am deux mille cinquante vision bi yóbbu na ko ba dix. taux de foyer en étant sur sur surpopulation bi trente huit pour cent zéro pour cent lañ ko bëgg a yóbbu. tey jii li nga xam ne mooy taux d' accès à l' électricité 84 pour cent la yóbbu bëgg nañ ko yóbbu ba 100 pour cent prix de vente kilowatt heure mu ngi ci 110 francs bëgg nañ ko yóbbu ba 60 60 francs mhm. accès à l'eau potable mu ngi nekk ci 97 pour cent ñu ngi ko bëgg a yóbbu ba 100 pour cent assainissement mu ngi nekk ci 63 ñu ngi ko yóbbu ba 100 pour cent. mais lii ay bëgg-bëgg la bëgg-bëgg la. financement bi aussi. moo financement bi nag foo foofu la affaire bi taxawee. Mhm. tey jii ñu ne financement lan la ñuy jiital ñu ne financement bu jógee ci réew mi la ñuy jiital mooy lan impôts yi ñu doon jël di ko sàcc ak yi ko luubal ñu fexe impôts yooyu ñu fay ko sénégalais yi nga xam ne amuñu woon culture fay impôt ñu fexe ñu am culture fay impôt entreprise yi nga xamante ne déclaré wu ñu woon amuñu woon culture fiscale ñu fexe ba ñoo ñu déclaré wu en la en les poussant à ce que ñu ñu ñu nekk en règle mhm. euh, parce que tey jii boo xoolee mhm. état du Sénégal du fay nit mhm. E marché wala benn contrat. te mhm. amoo crédit fiscal mooy trois mois. kon loolu Ousseyn boo ko déggee. lan moo taxoon presse yoreel. Mhm. état quarante milliards. Mhm. ba pare état jël ay convention signé ko presse boobu di leen ko fay ACP yi du ko fay. y avait anguille sous moo tax nous appelons les fonctionnaires nañ bàyyi ces pratiques là képp ku yoreel état du Sénégal xaalis buñ la fay dara te tànk fayoo sécurité fiscale ba pare ba am sécurité fiscale tey jii su nga loolu bu ñu ko boolee tey dégg nga problème transitaire yi nga xam ne ñu ngi leen di jàpp ci ay autour de milliards ñu koy fay loolu bu ñu fexee ba xaalis boobu noonu yi nga xam ne dañ ko doon sàcc di ko luubal di ko détourné mu desaat bi Sénégal maa la wax na la Sénégal du soxla benn benn financement bu jógee ci extérieur parce que li fi nekk. mën na ko fay. Mhm. tey jii dégg nga entreprise bu ñu doon wax gawa euh, Sabodala Gold Corporation. 154 milliards la ñu doon fay. gars yi luubal xaw ma fexe fexe fexe ba fayuñ sax lu mat cinq milliards. kon donc du xaalis boobu la ñuy fexe mu dugg ci gafak réew mi. Mhm. ñu jël ko utiliser ko à bon escient. fexe ba nit ñi mën a faju ci jàmm mhm. fexe ba nit ñi mën a jàng ci jàmm fexe ba nit ñi mën a liggéey ci jàmm ak salaam mhm. foofu lañu bëgg yóbbu Sénégal dinañ desaat euh, ci euh, référentiel bi tuuti euh, Mouhamed mhm. Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye bi ñu woowee Sénégalais yi foofu ca jam ñaajo ndax nga gisee exposition bi ni ñu waxee li ñu waxee ak capital humain bi ñu bëgg maanaam yow Sénégalais bi yaa dugal sa loxo loolu mooy force loo mënul projet amul ah dañu fi woon ñett livre yoo xam ne bokkuñu sax profil bi njëkk bi mi ngi ko defee woon ca place de l'Obélisque jàkkaarloog journaliste yi deuxième bi ñu ngi woon waxee joxe date projet sàngam dina génn mois de septembre. xam nga dèjà rek loolu rek gindi na Sénégalais yi waneen ñoom li ñuy wax amul parce que Sonko dafa joxe ay date yoo xam ne amul parce que boobu ñu ngi doon làmbatu barki Demba Ndiaye du ma tudd tur journaliste bu mag génn feeñ ci benn télé mu wax ni projet bi dañ ko bind ki ko bind xam nañu ko man du ma dugg ci ma loolu. mais li ma mën a wax yi mooy projet amul léegi nag. dafa am benn affaire boo xam ne dafa am lii mu wax. fii projet amul kon lii la waaw non xaaral non déglul sëñ bi may ma. man danga may bëgg nga déglu ma wax ma man sénégalais laay waxal parce que. niñ leen dëkkee di leen nax di leen wax loo xam ne dara du ci dëgg instant bi toni sénégalais dañoo sonn ci fen yeeg naxe yi léegi xam nga mënoo fi xëy wane fi ay wane wane def defal ma profile profil toog naa fii ma wax leen ko profil Sonko Jomaay Jomaay mooy Sonko na projet baa ngi nii teg bi bind ko toog di làmbaat ñëw indi guy gi léegi nag fi mu ne nii xam nga sénégalais yi ci lan lañ toll mooy dañoo xam ne ñii ñu teg fii bëgg nañu mais mënuñ loolu yàlla dina ko def man chaque jour ma jox leen exemple boobu di nga indi nit sa biir kër nga di ko gis si mbedd mi ne doo xam li mën mais soo ko indee sa kër jox ko lay may di nga xam ne ndax mën na wala mënul du dëgg kon manipulation boobu noonu di digg sénégalais yi bi nga ko waxee léegi da ko demandé question na ko financement yi financement yi du jóge fenn dañ ko bind teg ko génn ko ci moment bii pour demee ko campagne kon xam nañ li ñu doon wax yëpp dara amu ci gis nga nag xale bu ndaw sax boo ko naxee benn yoon ñaareel bi bala nga ko naxaat pour jël tàngalam dina dina riposter foofu la Sénégal ay toll mbéjum kanam nag borom moo koy fajal boppam. parce que chaque fois ñu wax leen projet projet projet Sonko bu taxawee dajara mbooloo mi jug leen jour date le 7 le 8 la le 10 le 20 dara. fii lañ mu ak sénégalais yi moo tax ku ko déglu tey am gàcce non non bàyyi ma euh, euh, waaye noppi yow yaa Samuel waaw ban li wax déglu li ngay wax nii waaw yow yaa amul xam-xam parce que yéen da ngeen a wax a wax fena fena déglu ma dama ne dama yaa amul xam-xam li ngay wax nii waxi fen la parce que da ngeen a fekk dëkk yëpp da ngeen a da ngeen a duula ba ñëpp xam ne ay dul kan ngeen non waaw man ne maire waxuma dama ni fekk ñun nag xoolal léegi nag xale yi nekk si biir kër gi xale yi nekk si biir kër gi suñu mag yeeg suñu yaay seen yooyu waaye non déglul waaye lii eh campagne am déguisé waaw déglu ko sëñ bi eh, sëñ bi eh, eh, xoolal xoolal kii bu ñu yàq bu ñu yàq man du ma sa morom déglu ko xoolal bi may wax bi may wax daf dama la déglu da nga may déglu da nga may déglu yéen amatu leen yéen dama ne dama ne noppil dama noppil xam nga dama seen problème wax naa ko fii koroog bi ñu toogee fii mm-hmm. ñoom jàpp nañ ni ñoom ñoo xam lépp. Mhm. ñoo mën lépp te moo tax bu ñu toogee dañuy fen rek. mais yow xamoo dara waaw may ma tuuti déglul. même même dara waaye même dara waaye même projet bi laa ne la ay. waaw déglu ma xoolal li ne ci biir projet bi yëpp yéen dèjà da ngeen ne woon nag 4000. Ah, waaw non déglul. même même ñoom bañ na woon projet bi 4000 personnes ñoo ko bind. Mhm. korog bi ma toogee fii. ma toog ak ay naataangoom xam la laa leen wax bis bu projet bi génne ngeen xam ne benn nit moo ko bind. ñu ne 4000 personnes ñoo ko bind ñoo ko saytu bind ko bu mu génnee loolu dafa feeñ moo tax lii mu naan ci man gaw ma lii ci livre bi li muy wax noonu man du ma ci focus parce que ay fen la. parce que xamoo ko. waaw non da ngay déglu waaw non non yow yaa jàngul. mais mais moom waaw non dama ni. Ah. te yow da ngay liggéey ci yow yor nga entreprise da bi. xam la mooy problème bi Ousseynou cest à dama bëgg ñu déglonte mhm. moom li muy wax nii amul sens di ruube maa ko ko dàq sinon émission bi dina dem ba kenn du déglu dama bëgg nga déglu ma lii ñu indi ci page bi laa wax présenté ko sénégalais yi dañ fa wax joxe ay jour joxe ay date doon wax projet projet kon bu ñu xëyee tey indil ma lii man gaw ma lii am naa droit ni gaw ma ko lépp lu ñu wax ci biir livre man laa wax man waaw non da ngay déglu sëñ bi soo ko gëmul da koy démonter scientifiquement amoo droit wax non non déglul sëñ bi science bu ñu la ko tegalee dama bëgg a déglu boo koy boo koy boo ko gëmul da nga koy démonter scientifiquement nga ne lii ñu wax vision bii ñu wax 2050 ñoom nee nañ 97 euh, pour cent lañ lañ lañ ci accès au à l'eau potable 100 ko bëgg a yóbbu yow scientifiquement nga démontré ne lii mënut nekk parce que gàllankoor yi. yi dafa waaye léegi yow amul ah, parole amul parole yow soo waxee yow yow xam nga ñi ñooy ñan mooy ñi nga xam ne dañoo dañoo ñi dañoo perte ñii. xam nga toog ne fi wax ay wax li muy wax yëpp dara du ci dëgg. ci côté moom xam xam nga ñun. def naa vingt cinq ans ci média. booy fen damay xam ni da ngay fen mais damay ànd ak yow fen yi. respecté wuñ doomu aadama yi parce que ñoom nii ñu mel nii même si xale yi sax ci loolu loolu lañ imposé saa waaw may sa waaw bi doo déglu waaw da déglu sëñ bi déglu ci biir commentaire yi waaw nañ wax ci non non da ngay laa jox parole sa da ngay bàyyi saaga yi non da ngay euh, leen fàttali ñu ngi jéglu baax baax ah léegi Mouhamed dama leen ñaan entre yéen ñaan yàlla nga naka wodd rek wodd ko a utiliser ci góor gi allez-y waay mm. bëgg ñu déglu moom nee na jàng na dafa am xam-xam kon su may wax daf ma war a déglu suñ ko joxee parole mu ci ko wax nit ku nekk ak li ko yàlla defal mais man su may wax da may déglu. allez bi muy wax man dama toog déglu ko concentré wu ci sama téléphone di ko déglu ba mu pare nga wax ma ma ñëw suma wax cest à ñoom boo leen di wax li ngi leen di wax day saf ci ñoom ba nga xam ne duñ ko mën a dékku parce que ñoom dañoo yor nguur ba pare continuer di di di opposé wu ñoom nii lañ mel fu ñu dem wane ko fa. Mhm. moo tax bi may wax du ma déglu. dama ni su ma ne fen du moom parce que moom yorul nguur. nguur gi amu ci dara ñii dañoo wax bay bëgg dee amuñ ci tus du dëgg seen manipulation bi ñu nekkee. Eh, ci réew mi bu fekkee réew mi moo bi ñu nekkee ci dëkk bi man faalewuma état yaakaaruma nguur bi fi nekkoon bi fi nekk laa yemale. yàlla gëm yonent bi Serigne Babacar Sy ak la may samay ñaanu waajur. Mhm. lijjantuwuma keneen waaye nag réew mi moo ñu ñor. ci réew mi la dëkk. réew mi doomam crasse la. am nañu droit kaas. bu fi nguur toogee cuune am nañ droit ne nguur gi fi toog mënul projet bi ñuy wax man gaw ma ko amul projet amul loolu ñëpp wax nañ ko lii ñu wax fii làmbatu làmbatu làmbatu làmbatu làmbatu jékki saa yi uti leneen lu ñu leen bindal ñëw ñu teg ko projet ko préposé ko sénégalais naan ay guy gi kenn dafa mës a dégg ay guy gi lan lañ fi doon wax ñaata projet la ñu fi imposé jox ñu ay dar Sonko jox ñu fi ay dar sottiwul ba mu xamee ne fii réew mu lu mu doon joxe moo tax ma ne la lii mu wax ci biir livre bi laa ko tontu dama ne ko d'accord gëwuma li mu wax. man lii gëwuma ci dara li ma la bëgg a laaj. léegi daaneel foofu mooy dama la bëgg a question mooy. Euh, parce que ñu bëri nañu ne mhm. wax. fii boo xoolee euh, ci biir projet bi déggoo ci pratiquement xaalis bu bëri bu tax ñuy wax. Mhm. treize milliards treize milliards la wax pour cinq ans yi. Mhm. maanaam déggoo ci ñuy annoncé ni dañu bëgg lii dañu bëgg comme PSE bi. ak gisoo ni sénégalais ñu nar a impliqué ci projet bi. loolu aussi waaw moom laa la man parce que secteur privé dañuy xam nga xam nga euh, Ousseyn dafa am loo xam ni soo ko yàgg soo ko yàggee def xam nga yow yaa ngi naan. Hmm. projet bi ñu nar a saluer sénégalais pour ñu kii ko il faut son baax ñu saluer ko mais xam nga lu mooy problème bi. Hmm. sénégalais yi ci boppam. Hmm. dañ leen yàgg a nax man quand je la su may wax man askan bi laay waxal lii nii man ak samay morom kenn gëmu ko ci ba ci Pastef ñi fa bokkoon gëmuñu ko. ñu bëri ñu nekkoon Pastef gëmuñu projet bi correct bi ñuy def seen déclaration man ñi ma toogaleen di ko seetaan ñu Pastef lañ mais dañu découragé. ah bon gëmuñu lii. c'est-à-dire man baat boobu il faut nga xam li ma lay wax lan la amul luñ ciy yaakaar di xaar suba mu sotti dara du ci sotti suba benn ñaareel bi moom dafa toog fii mu déclaré mu ne. Mhm. Sonko moo taxawoon mu ne. bépp parti au pouvoir bu yàlla jox nguur soo demee élection législative waru leen ko jox majorité. Ah, loolu nañ ci ñëw. waaw non xaar rek ñëwagoo ci mais dafa am li tax ma ñëw lii. kàddu yooyu doon woroo. Mhm. tey gaa yi fal ko. lépp di ci dañ. moitié bi yëpp moo tax gaa yi gëmuñu lii. d'accord projet bi ngay wax nii. man laa wax man. Mm-hmm. ak samay morom bëri naa ci ay morom. xaaral xaaral mm-hmm. samay morom. waaw d'accord yow ak say gëmuñu lii. parce que lii lii waaw lii ngeen wax ngeen li ngeen foo xam benn amu ci mucc. tontu. na eh, xaaral xaaral xaaral xaaral ba léegi ba tontu lay tontu. waaw xaaral ko day fen. non non may ma Samuel soo bëggee émission bi dem soo bëggee mu mu dem. émission bi dem par force. waaw da nga xamul dara. xamoo ci tous seen livre bi laa da ngeen a fen a fen xamul lu leen naqadi ma jaaraat parce que non moom nee na kon moom nee na mhm. man question bi ma laaj tontuwuma ci. kon xanaa yorul yow parce que yow li nga bëgg a dégg xam nga nga bëgg a li nga bëgg a dégg rek nga bëgg a dégg. mais li nga li nga bëggul dégg soo ma invité xam nga bi yàgg nga ma invité te musuma la laaj kan nga invité dama bëgg ñu dégloonte ci xel. Mm. suy wax dama koy déglu man ma pare ci dem suma yoon. musoo ma invité ma laaj la kan nga invité. Mm. man kilifa laa. doo dara. Samuel baax waaye kii du dara ma ci ma nekkee kilifa waaye kii du dara nga xam kilifa bu perturbé bu la soxla mais baax ko wax ko wax li day non doo dara waaw déglu ma d'accord mais Samuel non déglu waaw ne nga war a waaw non déglu d'accord non wax nga wuti xam-xam xam nga ni lii boo bëggee dem waaw non xoolal de kilifa la xam nga xam nga xam nga lu tax xam nga mën na ko kilifa la moom deful yëfu responsable xam nga buñ la invité ci plateau ñu ne nga ne yow am nga xam-xam yow yaa jàng kon su may wax danga may déglu ba ma pare yow nga wax man du ma la ruube parce que boo waxee dama lay bàyyi pour nit ñi déglu la man su may wax da may bàyyi ma wax parce que xam nga la mooy seen problème. Mhm. mooy ñoom boo leen di wax dara. Mhm. lii dafa ne benn preuve mooy waaw waaw non xaaral. <laughs> parce que da ngeen jàpp ni oh, ba xaaral ma ñëwaat. dama koy waxaat. dangeen jàpp ni yéen kese yéen yéen a xam moo tax fu ngeen toog. Mhm. jataay bu ngeen toog wala plateau bu ngeen toog ci télévision wane seen jikko xaaral rek. non dinaa la jox temps waaw xaaral mu daaneel. comme ça mu damay daaneel wane seen jikko xam nga bu ñu toogee fii nga ni. Ouzin man. Mhm. soo may invité man xaw ma la. bi mu lay invité toog fii xaw ma foo bokk. man lijjantiwu ma ko dafa ma woo rek ma ne ko maa ngi ñëw amul problème parce que ndax man actionnaire laa fii dama ciy jàpp. su may booy lañ am nañ droit yor lu mel nii ma ñëw jàpp ci wane sama xam-xam may ma rek non may ma rek yow ci lan ngay jàpp waaw non may ma rek may ma rek waaw may ma waaw may ma léegi yow léegi yow yow soo ma yow soo bëggee waaw xaaral may ma may ma tuuti yow yow sa pro yow sa dig ma rek. may ma non non xaaral non non non non non non ma jaaraat ci digg bi. mooy ñu dangereux ñoo nekk nii parce que ñii la ñuy bàyyi. ñu dem ci terrain gis nga micro micro. xam nga sànq bi may wax dama lancé message ma ni def naa vingt cinq ans ci média gis nga micro du ñëpp lañ koy tàllal xam nga dèjà mi ngi toog di manipuler naan ay jàngoo xamoo ki jàng xam di wax toj-toj moo gën a dangereux ki jàngul ba pare xam àdduna di xam lan lay tojee ay waxam ba bu ko ni déggoo jariñu ci. Mhm. ñii ñoo yàq réew mi ñii ñoo tax ndaw ñi. dem ba jàpp ni réew mi lépp violence la. d'accord fu ñu toog. Ah. dañoo war a saaga dañoo war a xas nit ñi ñoom rek ñoo xam yow gëmloo nga ma projet wax nga question bi laay tontu. Mm. ma ne la man d'accord naa présenté nañ ma projet man Mouhamed Niang en tant que président mouvement And Defar Suñu Réew. gëwuma projet bi. projet amul yow léegi yow nga ni man. Mm. question bi ma Ousseynou laaj. naa ko ci tontu far force tontu ma ci jànguma xaw ma dégg li ma la wax de. dama ne waaw d'accord waaw waaw d'accord waaw xam-xam li ma la bëgg a laaj. waaw boo paree nga wax waaw pare naa boo paree nga wax waaw yow yaa jël question. waaw d'accord déglu ma rek. ma non non non non non non wala kon wala ñu xamul wala ñuy yàq réew mi wala ñoo xam ne nekkuñ ay responsabilité yéen la parce que yéen seen dundin yëpp violence la wax lu ñaaw yëpp leen ko xame yàq ngeen réew mi te réew mi fi mu toll nii sénégalais dañoo sonn sonn goo xam ne xam nga lu ñu bëgg a dégg li avancé loo réew mais pas ay projet di leen gëm loo loo xamante ni si mooy dem ca kanam léegi nag man man moom non mënu ma continuer ak kii xaar rek parce que la non non toogal la ñu waxtaan non xaar non nga ma tere ma dem yow non xaar dama lay wax yow man yow ma bu ma tax a jóg de dama ne déglu ma fii ngay toog débat da ngeen uti xam-xam de yéen da ngeen uti xam-xam de 25 ans nga def si si média ndaw ndaw laa te damay entraîné moytu ma de déglu ma dama ne dama ne doo daw fii ngay toog débat waaw waaw non bul dem bul dem waaw. daw doo ko def de doo doo ko def de. fii ngay toog débat. mais Samé Samé da ngeen uti xam-xam par force. sa Samé ah. danañ uti xam-xam par force. bu ñu bëggee débattre rek waa Pastef. mais Samé mais daw noonu dem demul dawul. Mohamed dawul day taxaw danañ uti xam-xam par force bu ñu bëggee débattre non dawul Mohamed dawul Mohamed Mohamed Mohamed non Mohamed nañ toog eggale émission bi quand même waaw. micro bay taal micro bay micro bay waaw. lii émission la. moom bi wax. ñi seetaan ñëpp xam nañu ne man dama ne tekk di ko déglu. d'accord li ngay wax yéen yéen a mën yéen a xam yéen a am niveau yéen a jàng. yéenay wax ci xam-xam. moo tax booy wax damay toog di la déglu. Mm-hmm. waaye man su may wax. su fekkee dañu toog ñu ñaar ci plateau man may wax yow nga ne yow dooma ma déglu. damay ruube dof laa nangam di dagg yi saaga. damay jug dem su ma yoon. non fii nga yaay saal non non ankay. léegi léegi pour recadrer. non wax de pour recadrer émission. wax de waaye damay ñaan ñëpp ñaan leen ma dama leen ko ñaan léegi li ma bëgg mooy. parce que depuis sànq ba léegi da ngeen wax ji bi mu commencé jóg euh, c'est que nag direct bi nit ñaa ngi ñëw di suivre mais dama gis am ñuy bind ñu bari ñu tegaloo naan respecté leen téléspectateurs yi c'est-à-dire que ñun fii damay gis ñenn yi di utiliser ay baat yoo xam ne c'est vrai que nag nekkul baat yu banaal ci baatu olof mooy ay fen ak yooyu ci ceddo loolu du lu banaal saa olof mën na ma seede mais ñun dañuy am kersa en fait ñu utiliser day fen day fen day fen léegi pour léegi ñu egg la débat Mouhamed yéen ñaan ñëpp ku ci nekk rek na ma dimbali ci baat yooyu ñu bañ ko utiliser plateau bu ko defee waxtaan bi neex. Ah parce point yi ñu war a waxtaan ah bëri na oh, léegi moom dagg bi nag dagg bi noo ah, xaar dagg bi noo xaar moom dagg bi waaw. ñaata temps la fi dagg bi dagg bi dagg na mën nañu éviter dagg mais de temps à autre dina am ay relance léeg mën na la këf tuuti mais bu mu yàgg. léegi Samuel li ma la bëgg laaj mooy un peu euh, desaat tuuti ci projet bi en quelque sorte wax naa sànq mm-hmm. ba nit yi participer ci dëkk bi dëgg-dëgg euh, si cinq cinq ans yi di ñëw xaalis bi ñu teg pour euh, dimbalee ko wala sax liggéey ak projet yooyu noonu. sànq fonds yi euh, gis nañ FMI également Sonko wax na ko dem ni ñëwoon nañ seet.